sama gars yi ziar ziaraat sama mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo waaw di len wax na tay si dañ déplacer wa ñëw ba fii ci Niakarab sen euh, émission ndogu mbeur ndogu mbeur waajal combat sama gaay kan moy waajal combat ñu ni réew mi réew mi nekk fii ci Niakarab ah, le poulain di coach euh, le poulain de Omar Touré mom la ñëw seet ci tay l'adversaire de Petit Baye numéro 2 mi ngi wara a face à un adversaire redoutable ñu déplacer wu tay fassiyene yéene ak mom question réponse raka ñu maa lay ziar loolu ziar maa ngi nii ma am tawfeex avant tout loy nuyoo déjà ñi lay sétal ma ngi nuyu sama gaay yëpp ñu fi nekk ñëpp samay mag lan ñëpp maa leen nuyu waaw di bégg presse bi di la nuyu xam waaw. dëkk bi yëpp. waaw ñaakoroot lu ma leen di maa bëgg te yàlla tax. Hmm, maa ngi nii toog. Hmm, waaw. defoon nañ ko daaw. àdduna wër nga këf. maa ngi nii. waaw ren dañuy baaxantal. waajalaat déwén. incha allahu rabi. Euh, rakk ji kon chaque euh, koor ni nga koy defee chaque weeru koor da ngay jël benn jour boo xam ne da ngeen di def ji comme comme ça defar ay ndogu jox ko jaamu yàlla yi ci ngeen di dox. waaw chaque weeru koor nii dañ koy defee samay mag ñooy dox lépp man aw ma si lu dul ooma ma ñëw démb laa yëg lii di si kontaan trop xam nga di leen delloo seen waaci waaye ñoom ñëpp di bég si ñoom waaw ah. mention spéciale na su ma limee damay juum mhm. ku si mel ne almaami mhm. xam ñoom Boni ñoom Maam Raan ñoom Babacar ñoom Iliman Touré mhm. xam ñoom Maam Laay ñoom Famara xam nga groupe Barada bi daal barada bi waaw groupe barada bi. ñoo koy xiim chaque jour. ataaya nag du leen romb. chaque jour ñu ngi koy teg. waaw mais réew mi fekkee waat ren waaw. relax. ñax mhm. deret. waaw waaw boo kafree. Mhm. loolu lan xam. Mm. Mm. naturellement noonu laa mel moom lan xam. bu ma fekkee ci biir Baye Fall yi xam nga yaa ma gën a xam. bu ma fekkee xam nga noonu nga may gisee chaque jour. du ma changé benn yoon. mais réew mi bi ngay gis boo ñëwee ñàkk Europe ak réew mi bi dem arène nationale c'est différent boo duggee ci ci làmb da ngay mel ni dañ la xabtal. mais ku ñëw fekk la fii sa koñ day mel ni benn xaru yar boobu noonu dana booy bi est-ce que mbër la genre yooyu noonu. aha waaw fu ma teg la quoi. dañ ma jël aj ma fu kawe. mënu ma leen a wan lu dul yaar xam nga ndax yaru moo jiitu lépp. Mhm. boo nekkee sa secteur wàccee sa boobu ba si suuf. Mhm. mën a ànd ak ñëpp. Mhm. xam nga la demee. loolu looy wax waaw ndax nag beneen sa ndogu yi jaar na yoon a ah, wax dëgg yàlla. gars yi préparé nañ ko Omar Touré comme toujours ah moom moom mooy numéro 10 bi. moom mooy mën a jeu bi yaa may dégg la Linguère nee naa leen bi ma fi njëkk a ñëw di livrer ay photo moom moom fi indi malgré nag waxoon naa leen histoire bi comment ça s'est passé l'année passée laa fi njëkk a ñëw conférence sama grand frère boobu ba tey mi ngi rafet mësul ñaaw mais nag nga nekk ci làmb ji ah nekk un lutteur boo xam ne mën naa ne ñàkk rob drapeau bi da nga ko téye ca kaw am na fi yeneen mbër yu fi nekk ah ay ñoom action ñu ngi fi ñoom scorpion ñu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen ñoom Lat Joor ak ñoom ñooñu ay ñoom euh, pël bu ñuul ak ñoom bébé soq ak ñoom ñoo ñu noonu mais yow drapeau bi da bokk ci ñu ko téye ca kaw drapeau ñàkk rob est-ce que diisul ci xale bu ndaw nga war a porter sa sa dëkk drapeau bi war ko téye ca kaw genre yooyu noonu est-ce que diisul. waaw loolu yëpp maa ngi sant yàlla du sant yàlla bu baax a baax a baax lu sama liggéey nag. liggéey ma sax lu toll noonu sama liggéey way jur la. Mhm. xam man liggéey ma lu toll noonu ko xam nga mu gisee lu may topp sama ginnaaw Hama, nga booy bëri ji luy topp sama waaw luy topp sama ginnaaw mënuma lu dul bàyyi fa sama bakkan xam nga wàccee leen ndax après ñoom lu ñuy yenu dafa dafa dis trop xam nga supporter moo gën a sonn mbër laa walaa wa talaahi dañuy ñëw fii kaar yi dina mat plus de dix kaar day xat ba borom kaar du daw dañuy taxawal seen oto mais booy billaahi dañuy dagg fii nii xoola cëppant bu àgg ngir man rek jëmm ju xeebadi gi toog xama di leen bëgge ñoom ñëpp sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm samay ñaari wayjur kan nga mujjee bëreel ku mu mujjee bëreel tapet bi tapet ban ñaaxarañ ñaaxarañ tapet la kooku ragal la ñaaxarañ moom léegi Lac de guerre numéro 2 laa koy woo yaaka laal nak mom sama boy ah dama dug galam ana lak de guerre numéro 2 mu xol man xaqataay yaaka laal nak day miin lek wa mais yak mom kérok nak à nationale bu ñu waxantee dëgg rek yow ak ñaaxarañ kenn xàmmewu leen réew mi li ñu ko xamee mooy arbitre ne prix mu dox sa kaw. combat yi nga am ndam yëpp loolu moo la ko may yi nga ñàkk loolu moo la ko xañ arbitre ne prix nga dox ci kaw sa adversaire attaquant nga loolu ñëpp loolu la ñu xamee. ñaaxarañ ku ko xam xam na ni bëreekat la mais seen combat bi passé seen combat bi passé gars yi dañ leen a mere parce que li ñu leen xamee woon defu leen ko qu'est-ce qui s'est passé. xam naa ne gars yi dañ ma mere. Ah. lu ma nag. xam mhm. sama samay course la. ay course waaw man su ma demee ba taxaw. xam nga ne nan maa téye. su ma demee ba gis sama moroom góor si digg géew bi taxaw. nga taxaw non dañ ma bi tamit moom danoo dañ ko waxoon loo xamante nii xama di ko wax si si noppam chaque la booy bi jàppee lay daan. moo tax bëggul ma am ngemb. yow seetaan nga combat bi. bëggul ma téye ko fenn. ni nga daan attaqué combat bi attaqué wu. waaw bi nii dama ànd ak samay mag. xama ku nekk jour bu nekk lu ngay indi ak lu combat bi laaj nga def ko dama ànd ak samay mag ma combat bi lii ak lii ak lii ak lii la laaj leneen lu ma fa defoon man maa def fët. da nga respecté coaching. waaw ndax lu ma bëreloo rek laa bëre. xam nga ba combat bi nii. ba combat bi nii mais bëggee ma ko woon noonu. noonu la demee de. barke Serigne Touba bëggee ma ko woon noonu yow xam nga moom bu baax. waaw xam nga sama combat man dama fay teg jeexal. mosoo waaw man bëggee ma ko woon nii mais. léegi nag instant bi yi staff bi ñiy toog. supporter yi dañ laa mere dañ la xamee woon bëre jàpp daan ñibbi nga dem nul. dañ merewoon na ma. waaw ndax su ma merewoon dañ ma koy wax. dama ñëw ñu dama ma ñëw man mi ma meroon toog di jooy ñu ne ma réew lii jarut jooy xam làmb la rek lii na doon ndam si yow. wallaahi dama mujjee dem ba giif ma xam ne lii làmb la sport la xam nga chaque jour kii tey day demee su suba mu demee neneen. yaa ma gën a xam. réew mi nga jóge ci ñaaxarañ bëre combat nul. instant bi nag amaan nga combat de mais combat bii nga jëm du nul parce que ki ngay bëreel man xam naa ko bandi salte la bandi géew la. Petit Baye Fall numéro 2 moom nga am bala muy jël daf ma woo ne ma grand bi ma ko naa mu ne ma réew mi ma ne ko jëlal mbëkkante leen mu ne ma loo ci gis ma ne ko combat la jëlal mais man ci ni ma ko xamee Petit Baye Fall numéro 2 bu xaaree du baale bu arbitre ne prib day dox sa kaw. bëre na fi nag saison passée 4 combats 2 victoires 2 défaites mais li koy xañ toujours koy may bu arbitre day dox sa kaw na mën ñëpp instant combat de mais du nul ak Fall numéro combat bi du nul. nga ko yow mu nekk jëlal. yow ne jëlal. waaw waaw. Mhm. yow tamit sama na ma Omar Touré Seydina nga jël mais ki nga jël dama la ne bandi géew la. loolu yëpp xooluma ko si moom. di ñaanal yàlla xama wérgu yaram rek. ba jouru combat ba xama mu ñëw ma jàpp ko daan ko mu ñibbi. ndax man lu muy wax yëpp déggu naa ko. moom lu muy wax yëpp mu sama nopp bi bu baax. dégg nga li mu wax. amaana dama ko talul lekk te loo fi wax tamit dina la togg parce que waaw peut-être Baye Fall man lu ngay wax yëpp dégg naa ko. Riba Fall yow lu ngay wax yëpp dégg naa ko dama la talul lekk barke Serigne Touba Mbacke maa ngi samay business nag hmm. la ngay wax yëpp dégg naa ko di saaga def ay feem yow da nga xamadi doo bàyyi doo bàyyi faal bàyyi faal ku ngay woote nekkul si yow hmm. déggoo ma de maa ngi dégg nag ñaa man ay ñëw nga ñaakorop <laughs> aka neexoon mu doon weeru koor <laughs> bu doon aka neexoon nga ñëw fi si koor gi nga ñëw sama gaala ñu dalal la heure ndogu jot ñu jox la ndogu nga ñëw xool ma ñëw bokk ak yow néeg tëdd ak yow ba fajar déggoo ma de nga ñibbi may la paas jour làmb ma jàpp la daan la te déggoo ma de Petit Baye Fall lu ko aj la ko aj lu ko ma ko ajji moo ko gën a moo ko gën a moo ko sut fukki junni yoon waaw moom lam aj la ko moo ko sut fukki junni yoon kon man bu may gisee bu ma gisee petit baafaal yow bu ma gisee dama ooyoo njool mi. c'est-à-dire lu mu yaakaar. moom. waaw lu mu yaakaar ci làmb ji. lam yaakaar moo ko xam. na ànd ak ay mbokkam ñëw ma ànd ak samay mbokk ñëw. du nuyu sama famille yaay bu baax a baax a baax a baax. du nuyu sama famille papa bu baax a baax a baax. déggoo ma de yow yow yow nii nga fi nekkee. bëri Baye Fall awma lu may ragal si moom hmm. man su ma naree taxaw barki Serigne Touba Mbacke di ragal sama moroomu góor ma tekki sama ngéyam billaahi wallaahi wa tallaahi man awma ku may ragal laa la wax nii lu dul buur bi war na Serigne Touba Mbacke te bëri Baye Fall dafa na xam ne moom lenn na sax si nopp yi bu baax a baax a baax a baax man du ma mbërën tànde mbër laa hmm. lu tax ma nekk mbër laa hmm. man nekkuma xama di beure di laaxatu ba sun wa koñ ba koñ ba xam ma dedet dama ñew fekk sama ngemb sama digg eut ma jël tak waaw dama ko ñew fekk si digg eut bi ma jël tak ko kon lool nono du mom mom koy xañ Petit Baye Fall yow sama yoon du yow ya kay saltel tuuti nga si dama lay jappal lem la japp doomu dàngo. yoon doomu waaw yoon dama ko siy boole ndax ndax déggoo ma de déggoo ma de lan def noonu. moom la doomu dugal dugaloon ku dégg na fekk yow ma de damaa dégg déggu ma dégg naa moom la doomu daangu dugaloon ah moom doomu daangu da dugal ku làmb jooj man fekkuma fi woon làmb jooj dama demoon voyage. bëggoon naa ñëw nag mais si yoon bi lan ma waxee làmb ji nii la demee ak nii ak nii ak nii xam nga sama mag laa dégganteel mu tegal ma loolu màkk yi ñu àndoon kaw la xam nga ñu ñëw seen dëkk ñu def lu ñaaw def lu salte lu ñaaw comme ah gars yi dañoo ñëw seen dëkk xam nga ñu leen di jaxase def lu ñaaw def lu salte mais saaga nag yàkkamtee xeex la saaga yàkkamtee xeex la bu baax a. mais xam nga ni waa waa waa Niakorop yabuñu waa Tëngéej de waa Niakorop. saway waay mayal ma tuuti waa korop waa korop yabuñu wa tengé xam la moo zoo technique may nan naan zoo technique petit baay faal numéro da fay duggu dan fi sa grand frère scorpion stade ngalandu djuf la won petit fi scorpion kon yéen waa korop yabu len wa tengé daa ñaakoro yóbbu wa tengé tëngeej wax la rek man sama man sama premier combat yow da nga yow man yow man man man da nga fàtte man sama premier combat bir tengé la ha fàttewuma de. da nga ko non da nga ko biir Tëngéej la. Ah, waaw Zambala waaw instant bi le derby Niakorop Tëngéej un partout la. Euh, Petit Baye Fall numéro 1 dugg na fi daan fi Scorpion. yow duggoon nga Tëngéej daan fa Zambala kon instant bi Petit Baye Fall numéro 2 day ñëw pour mener score bi à 2-1. loolu lay ut si maanaam mission bi loolu la. loolu lay ut si. moom du ko fi amee. du ko fi xam na ne làmba ji bu ñu ko tëggoon seen biir kër sax dama koy daan. réew mi fan waxee confiance bi ngay dégager fan la jógee. sañ-sañ boobu dafa nekk si man. naturellement xam sama bopp bu baax a baax a baax a baax xam fu may teg sama tànk Petit Baye Fall làmba bu doonoon sa biir gàll sax dama lay daan. foo ko teg. fu wóor laa ko teg. doole wala ci déggoo ma si lépp. wala ci gàllaaj. si lépp dama pare fépp toog di ko xaar. est-ce que est-ce que nag côté soutien bi nag est-ce que instant bii nag gars nag ñëw nañ jàpp ci nag dëggantaan parce que da ngay soog a tàmbale man xam naa ne affaire daa metti woon gars yi ñoo ci daan waaw sama trondoo moom day daal di condamné chaque jour Omar Touré moom desetul 15 yaa la gis naa gis naa fi sànq seen président ASC la xaw ma waaw gis gis président gis naa ko fi sànq est-ce que les autorités les autorités du ma sax ñàkkorob mais ñàkkorob Tivaouane Peulh ñàgg ci waa ba euh, Lac Rose est-ce que instant bi les autorités ñu ngi ñëw di ci teg loxo maanaam jàpp ci bloc ticket yi jàpp ci kaar yi jàpp ci regroupement bi est-ce que instant bi gars yi ñu ngi commencé ñëw. waaw ñu ngi si jàpp bu baax maa ngi gis ñëpp amaana métti woon nag nag mais instant bi ñu ngi sant yàlla xam nga mais gars yi ngi siy jàpp bu baax a baax a baax a baax xam di sant waa Niakoulrab xam di sant sama famille yaay xam nga sant sama famille pap bu baax di leen woo nag. nga xam ne combat bi seen bés la lépp maa ngi ko teg sama doomu yaay bi Moodu. waaw ak loxo Moodu Ba. Moodu Ba Mba Maane. waaw Maane mbokk Sadio Maane. mbokk non Maane. mbokkam la sunu mbokk la. <laughs> xam nga te lépp si loxaam. Mm-hmm. loolu moom sama xel na si daal ndax lépp moom moo koy dox. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. sama côté famille yaay la bokk. di sant sama waa famille papa bu baax a baax a baax bàyyi moom ma sant léegoo ma de damay damay sant ñu ma war a sant man dañ may jàppale xam ku ñuy jàppale nag da ngay sant xam nga xam nga fu may waxee voilà di sant ñëpp di sant waa ñaakorob bu baax a baax a baax moom mbëru gox laa ñaakorob ñaakorob su ma jógee ñëpp dañuy jóg mhm. ba si xale ba si ndaw ba si mag mhm. ñëppay jóg wallahi suma ma bëri jee ba ñëw sax sama yaay danaa man koñ bi duggal kër par kër balu leen ax te non la koy defee wa dafa bëri bir wi hmm mais soutien bi est-ce que mi ngi ñëw ce que di sant waa ci bu xam nga di sant waa Pénitence waaw sama baay fa li fa nekk di sant wa sikap waaw di wa sant wa sikap sama place fa la nekk sama magasin ya. di sant gaay yëpp mhm. di sant baay fa li fa nekk bàyyi ma xalé bàyyi mo mag jigéen ak góor ñëpp mm-hmm. di sant waa ñaag mm-hmm. xama sant waa tuwampal di sant waa mm-hmm. tawféex baay daaru yi ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen woo sama jouru làmb ji le 26 mai 26 mai waaw 26 a jàkkaarloo Petit ma la wax rek jàppale ñu ngi ñëw a ngi ñëw président moom lu mu nar président lu mu nar président xam nga lu mu nar moom wax na la ko lu mu wax wax na la ko bu baax Pérési waaw Pérési yow da lay leer ne bu fekkee mobilisation si moom la fekk baax. mobilisation waaw. loolu si moom la fekk baax te du waxantu. du waxantu am na ñu fi nekk ñoo xamante ne tamit duñ waxantu. comme ñan ku si mel ne ñoom Mandione Laye. Mandione Laye xam nga. Mandione Laye da ciy jàpp si mel ne ñoom Babacar Touré. Babacar Touré xam nga. Babacar Touré ñoom ñoom mel ne ñoom Babacar Ñàgg. Babacar Ñàgg waaw. Mhm. xam nga booba jàlloo. ñëpp dañ siy jàpp bu baax a baax a baax a baax Papis Diop. Papis Diop xam nga. dañ siy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. ñëpp bàyyiwuma kenn mm-hmm. su ma limee damay juum mm-hmm. barke Serigne Touba su ma limee damay juum mais maa ngi ñaan yàlla daal xam nga yàlla wër wér yokk suñu tan yokk su wéral suñuy cër wala ba jour ba daal xam nga ba le 26 mai ba le dem def lu ñuy def ñibbisi a siffler génn arbitre sifflé génn suñu diggante yow xam nga lu may def du ma la ko wax moo war a téye micro ne attention attention réew mi à gauche petit Baye Fall numéro 2 à droite arbitre bi sifflé na génn seen diggante bu ma ñëwee wax ma fooy toogee foofu nañu bu ma ñëwee wax ma bu ma ñëwee xoolal def ma signe nii rek waaw waaw su ma defee signe looy def da ngay am image bu leer waaw waaw léegi léegi disons tey le 26 mai waaw waaw eh booy booy booy bu ma dugal bu ma dugal bëri leen seen combat rek génnee ma ci man bëréewu ma ma ne bu arbitre sifflé mu ne la kaa ñu bëre bu la woowee si bëre looy def man bu la woo si bëre bu la ne kaa ñu kaa ñu wute teg teg gi ku ma ku ma woo si bëre yow mel ne kooku naar si nguuxum soo bu la kaa ñu bëre looy def am nga bëre bu daan petit baay faal man waaw bëre bu ko daan bëre bu daan petit baay am nga ko ah am nga ko non man dan ma sol ba ma fees del est-ce que am nga bëre bu daan petit baay faal déggoo ma ne la man dan ma sol ba ma fees del hmm, man déggoo ma de. man kese kese kese. ah man rek bëri laa. man rek bëri laa saxantuma ak samay mag. ña may bëreel. yaa ngi fente dama bu leen kaa ñu bëre looy kaa ñu bëre ñu bëre. bu kaa ñu xeex ma jàpp ko dóor ko daan ko. ce xam nga ne loo wax après Petit Baye ko seetaan te dinaa dem seetaan. Petit Baye Fall dem seeti ko mu déggoo ma de. dama lay nooxu daan la. pour nga dégg dégg wax ju yaa ngi dégg ah wax ju rëy dama lay dóor daan la ah, dina la tontu nag parce que déggoo ma dama lay def lu yéeme di yow yaa may téye yow da baax rek toppal whatsapp bi rek di wax lu la neex dama nga entraîné ji moo gën réew mi réew mi émission waajal combat la émission dogu mbër la ñëwoon naa fi ñëwaat naa fi te xam naa ne tamit bu yem ci tey parce que yaa ngi ci yoon te gars yi nee nañu bu yoon jeexul waxu si lu jeex lan ngay tàggatoo tey ñu waajalaat leneen naan tamit open press ba tamit dañuy ñëw couvrir ko comme d'habitude lan ngay tàggatoo. open press bi dama koy wàcce bu zéro degré yow ñàkk ngaa ñëw sax sama open press waaw. Ah. lu may tàggatoo daal xam nga di bëggee nag sama jigéen xadi waaw waaw dafa tukki nag uh-huh. di xaa maa ngi jégalu de baal ma àqare xam nga ba nga demee ba léegi déggantewunu xam maa ngi dégg nag say wax ju rafet xam mais chaque jour yaa ma gën a xam xel maa ngi si yow du ma la mos a fàtte barki Serigne Touba mbaake lu ngay ut foofu noonu nag yàlla la ko yàlla may yàlla la yàlla may lu ngay ut foofu noonu da baax sa baaxaay ñëpp ko xam du tax sax du du ma toog fii nii sax ma koy wax ndax ñëpp ko xam xama waaw santal ñëpp waaw maa ngi sant ñëpp di sant sama gars yëpp di sant samay mag. waaw di sant mafia barada bi. a di sant waa Magadaan. les sant waa Magadaan nag. Mhm. bu wér damay gis nun may taxawoo. Magadaan waaw ay seela Magadaan. sélection la association mhm. waaw di sant waa jamono. loo di sant waa Bigang. xam nga di sant waa lébu gi bu wér. lébu gi ñu lébu gi moom samay morom ñoo fa nekk samay booy samay lonko. ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp di leen bëggee. xam nga di bëggee waa nekk. xam waaw. di bëggee waa Lakkale. Lakkale waaw bu wér di bëggee waa ASC Espoir. waaw. di sant ñëpp. di bëggee ñëpp. kii sama place bu mag la sama ah, place bu mag la mooy waaw mu ngi nii de. kii kii mooy kan. kii mooy Tafa Sey. Tafa Sey waaw. couturier lépp lu mu defarut baaxut. day dag day xotti di ñëw kii lépp lu mu ñëwut baaxut laa la wax. Tafa Sey Tafa mu ngi nii lépp lu mu baaxul. Badou Ciseaux moo damm ci loxo bi. déggoo ma de. waxal damaa bëgg ngi ñu ñëw di ko seet si. Tafa Sey Tafa Sey lépp defarul baaxul. waaw dafa mën lu muy def te yàlla bu ko cat dugg nag. amiin waay mhm, yàlla bu ko cat dugg. doomu dànku mi ngi nale gaan doomu dànku moom laay seen nale action maa lay ziar doomu dànku nuyu na la. <laughs> gërëm ñëpp doomu dànku bu defee loolu daa def lu ko neex rek. daa def lu ko neex rek xam nga gars yi ñëw feenee ñu leen indil biir bi loolu moo gën a salte. làmb làmb la dan la fekk si. Mhm. xam moo tax ma ne Petit Baye Fall. làmb ji bu doonoon sa biir kër sax dama lay daal. bu nekkoon sa biir gaale dama lay jàpp daan la maa man maa ëpp doole maa gën a féete xale waaw bu baax jàmm ci yow laa lingeer doo sant laa lingeer laa lingeer sama mag la di ko sant di ko gërëm moom fi njëkk a indi ñàkkoro fini moom laa fi njëkk ñëw di ko livré ay photo sama mag la de mais buñ gisantee comme morom lu tax maa ne gisantee comme morom mhm. lu nekk si moom da koy génnee wan ma ko il est naturel waaw il est naturel te man damay kontaan si loolu mhm. ndax dama si jëlee lu bëri amaana maa ngi bëreeg moom rek xam nga. loolu moom biti la fanaan loolu ñëpp wax nan ko. loolu ñëpp wax nan ko. mais dafa màgget nag. waaw waaw <laughs> mbëri démb waaw mbëri démb la mbëri garaawul féetal ci ginnaaw booy bi rek garaawul garaawul bul retour non bul retour toppal ci ginnaaw booy bi rek garaawul bul retour garaawul. garaawul merci yow kii wal rek wow wow waaw sant gërëm waaw ah, écurie bi waa di bëgg gaa yëpp di bëre sama grand bële Ibrahima Xalilullah Xalil mooy kan xaritu yàlla la mu ngi ne la si ginnaaw wallaahi di ko bëgg lu bari xama di bëgg ñëpp di bëgg waa diisoo di bëgg waa diisoo su ma limee damay juum wallaahi su ma limee damay juum wallaahi di bëggee yëpp waaw rumutu man fa bokk ma fitaa ma fiyaa man fa laa bokk de baay faale waaw baay daaru yi maa leen di bëggee de pare leen ko bu baax xam ne réew a ngi ñëw waaw waaw mhm. waaw écurie moom maa ngi leen di bëggee lu bari xama di leen wax ne ñëw ja dooleel ma ndax ñaakorob kenn mënu koo xar ñaar wallaahi ñu ñëpp ñoo bokk làmb day jeex barke Seydina Muhammad làmb day jeex bu njóowee doon benn lu bëri dañ koy am xama di bëgg ñëpp samay mag nag ñoo fa nekk mhm. bëgg na ma trop ma jox ma delloo leen cër bi ñoom ñoom scorpion. ñoom lasandeer ñoom scorpion. Mhm. ñoom action. action ñoom lajoor xama. waaw ñoom gaa yëpp ñoom pël bu ñoom ñoom aliw. waaw bébé soxu. xama ñoom bébé soxu gaa yëpp. Mhm. ñoom ki nu tuddati sax. nes numéro 2. nees numéro 2 xam nga gars yi ngi leen di bégee. Mhm. wona Serigne Touba Mbacke. wa mais fo baye nak monument de ñakorop muy Omar Touré mom mom moy le monument de ñakorop rob. kii fa yam. waaw xam nga bu ñu ne Pape Sarr mooy monument de Pikine Omar Touré moy monument de ñakorop wallahi awma aw ma fayam. moom sama baat ca kaw. jama ji ni mhm. barke Serigne Touba Mbacke awma ma fayam. sant ko rek gërëm ko. wa santal rek. mo xam lu mu bëgg. wa ci àddunaam. yàlla na ko yàlla may ci koor gi. amin way amin way amiin.

man xelu naa fi drapeau keroog yàggul arène nationale dafa ñëw sama kër la ñëw ànd ak man ba arène nationale kon respect a Omar Touré respect à Omar Touré respect encore à Omar Touré wax dëgg yàlla waa yàlla jo waa yàlla la joo xam ne ñun presse bi dañoo jox cër ba ñu yëg ko te ñun ku ñu jox cër ñu delloo la ko yàlla njàmm yàlla jëmma ji loo wax si moo am na lu des dafa teg léppam dafa jeexal tak ndax man sa combat day xabtalu wallaahi dafa jeexal tak tak tak ndax man mhm. moo xam nag lu mu bëgg yàlla na ko yàlla may. Mhm. ñu fi toog ñëpp. Mhm. mafia bi grand frère yi. mafia yëpp grand yi. ñoo xam lu mébëb si koor gi su lu baax. Mhm. yàlla na leen ko yàlla defal. yàlla na leen yàlla defal lu raw seen jortu. wallaahi aw ma seen fay nag. wallaahi aw ma seen fay man lii dama see kontaan. lii dama see kontaan. te dama jékki-jékki rek tey démb. démb lan ma ko wax. wóor na yàlla démb laa ko sant jarul mooy sant man garaawul man maa kii derbi la. yow yow du sama mbër. waaw. Baye. waaw. Bayraan sama doomu yaay la. Bayraan doomu yaay mooy magu kii. Bayraan. waaw sama doomu yaay la mooy magu kii. wallaahi chaque instant day yëkkati téléphone am woo waaw. lu baax rek la may conseillé. lu baax rek la may conseillé. sonn si man tamit. Mhm. saa bu ma woowee téléphone danaa man mbër naka entraînement yi bàyyi yaa ngi si kawam. Mhm. est-ce que xam nga lu nga bàyyi sa ginnaaw. Mhm. ma ne ko lépp maa koy xam mu ne ma góorgóorlul bu baax. xam nga di ko bëggee. waaw di ko nuyu. di ko delloo wàcc waayam. wallaahi sonn na si man. sama famille yaay ñëpp sonn si man sama famille papa ñëpp sonn si man wallaahi su may bëre kenn du nelaw kenn du lekk xam am naa sama benn booy bu ñaaw boo xamante ne ñëwul nag. dafa ñaaw woo rër rër rër dagg koy tuddee. kooku moom ah. non man rek la dàq. man rek la dàq laa man rek la daaxalaa la wax kooku Dóorin Njaay man rek man rek la daaxal <laughs> dégg ma ne ñeme entraînement nag chaque jour damay teg si code lu metti la may teg damay bëgg a dem ba bëgg a xeex ak moom sax ndax damay teg lu metti lu ma may jàmm xam nga sonn si man trop di ko bëggee xama nga di ko nuyu bu baax wallaahi waaw papa xees sama lonko la waaw papa xees moom yàlla daa def dafa ma gis rek bëgg ma te loolu yàllaa koy def si doomu aadama wallaahi ma jaral ko lu nekk nag mhm. day bàyyi yitteem yëpp ngir man damay entraînement damay taxaw mhm. xam nga sama làmb day ñëw taxaw mhm. ba danay dem sax ànduma ak moom ñu naan xanaa yéen ay magal rakk ngeen te noonu la demee yéen a bokk ak baay xam nga sama copain yu ñëwul yu bari ay baay pël xam ay pël bu ñuul waaw mhm. ñoom ñëpp bëggoon nañoo téye jotaay bi ay làmp ceer mhm. ñoom ñëpp xam mhm. di bëggee sama benn copain boo xamante ni nag mu ngi Gàmbi mbër Njaay dof bi mu ngi na ñibbi si mbër Njaay làmb ji kaa war a fekke de waaw ñoom maam raana ngi nii xam nga ñoom maam raana ngi nii ñoom Babacar Sarr danoo sonn si man fils mu ngi nii taxaw ci yaayam defal defal sama mag lu rëy noonu la demee nag sama mag noonu ñun ñëpp moonu jàngal mhm. Mhm. waaw ñun ñëpp moo moonu jàngal dañ laa nettali rek yow fekkee woo yow boobu xale bu ndaw nga eh 1997 97 98 boobu mbocc nga de boobu xale la yow da ngaa baax rek ñun ñun oustaz Gajaga oustaz Gajaga waaw Gajaga Oustaz Dia ak Oustaz Gadiaga waaw ñii dañoo baare kon xam nga ne ñii maa leen a xam may wax <laughs> ñii xam nga ne kon maa leen gën a xam lu may wax waaw di bëggee ñëpp nag waaw di bëggee ñëpp di sant ñëpp wasalaam rafet na aja sama gars yi mi ngi noonu seen émission waaja làmb la woon fii ci ñàkkorob tey ñu ñëwoon jël si kan réew mi réew mi bu ñàkkorob moom la ñëwoon jël si ma leen di joxaat di daje ba beneen yoon ziar ziaraat ja ngeen sama gars